processus électoral bi nga xam ne ci la Sénégal taxaw ci moment yi ñu nekk parce que c'est le calendrier républicain moom moo ko laaj ci processus boobu nag ki nga xam ne moom moo abilité wax ni ñii de ñooy candidats yu ñu génne ci ñooñu ñëpp présenté woon je crois plus de deux cents candidats bi mu génnee liste bu mu génnee mhm. mais dafa am ci askan wi ñoo xam ne dañ jàpp ni tànnin woowu nuñ ko defee jaarul ci yoon mhm. ndax nag ñun amuñu habitude di commenter décision de justice waaye dafa am loo xam ne jarul nga doon juriste pour mën ko xam bu ñu nee par exemple tel candidat génne nañ ko parce que dafa am double nationalité ba pare ñu gisaat ci ñu ñu jël am na ci koo xam ne mu ngi ci liste bi te am double nationalité bu dee ci fee yooyu nga xam ne ñun ñëpp constaté nañ ko am ñu jóg ni processus bi nuñ ko defee jaarul ci yoon xel xëj na mën na tey ci loolu kon mu doon situation boo xam ne assemblée nationale ak conseil constitutionnel mais ñu ngi ci te déggoowuñ ci pouvoir exécutif nag bi nga xam ne président de la république gardien de la constitution moo ko incarné gis ni comme coow loolu am na te te dañ bëgg dem ci élection yu libre yu claire yu transparente mu ne ah mbir mii de xew na il faut ma interpeller l'Assemblée nationale par rapport à cette situation te d'ailleurs avant que le président ne ne ne ne n'interpelle l'Assemblée Assemblée via le groupe libéral mm. nga xam ne PDS la ñoom ñoo ko saisir en tant que cle euh, des de euh, clé de voûte des institutions pour que mu xool mbir moomu wax ci mhm. loolu moo tax président ne assemblée comme noonu la yéen aussi selon votre règlement intérieur mbir bu mer nii bu xewee am ngeen droit ngeen réuniru wax seen xalaat ci loolu mhm. xalaat bi nag mooy ñoom dañ jàpp ni comme lii mel na ni il faut enquête am ci mhm. te en attendant que enquête am ci ñoom assemblée nationale ñu voté benn loi constitutionnelle pour que ñu renvoyer élection présidentielle en décembre. mais xam nga suy non attends rek xam nga dafay am solo la ko gis nga loolu biñ ko defee nag fekk président abrogé na le décret qui convoque le corps électoral ci nag la ñu jëlaat yépp déglu conseil constitutionnel. Mm-hmm. parce que beneen pouvoir la. boo xam ne aussi dina non seulement dafa jouir de toute sa liberté mais aussi dafay décider et en toute responsabilité mhm. kon ñooñu aussi dañ leen di déglu alors bi ñu leen dégloo nag mhm. ñoom ñu réuniru génne not ne d'abord un décret boobu président jël mu abroger le décret qui convoque le corps électoral décret boobu méngoowul ak li constitution wax mhm. kon rejeté nañ ko deuxième élément li nga xam ne assemblée nationale def na ko kero keroog conseil constitutionnel dàq na ko puisque méngoowul ak constitution ñetteelu élément ñetteelu élément bi nga xam ne wax nañ ko dañ ni comme décret bi abrogé la convocation du corps électoral rejeté nañ ko décision wu assemblée nationale rejeté nañ ko mais nag constaté nañu ñun aussi conseil constitutionnel que élection présidentielle moom mhm. kenn mënu ko tenir le 25 le 25 février kon nag ñeenteelu conséquence bi mooy il faudrait que ki nga xam ne moom mooy clé de voûte de nos institutions muy le président de la République il faut et dans les meilleurs délais mu permettre au Sénégal. mais Sow gis nga processus bi nga expliqué. voilà le processus. mais gis nga processus bi nga expliqué nii nii yëpp yëpp. ba nga xamante ne waaw groupe parlementaire bu bu et démocrate ñoom ñoo ko def. ba taxal ki nga xamante mooy maanaam euh, ay juge conseil consi yu bokk conseil constitutionnel. li nga xamante moo di corruption. Mhm. mais ñoom toog nañ presque toog nañ dans tous les toits wax ne. Mhm. am na am na corruption mais mosuñu génne li nga xamante ne moo parti bi nga àndal ñoom dañ dañ dañ si jàpp dañ si mooy mhm. parce que bëgguñu woon li nga xamante moo di élection ñu dem si élection ay mhm. élection présidentielle gis nga loolu sa analyse la et je te le mais li constat mooy li constant mooy que boo nekkee njiit fenn muy réew muy leneen am ay tuumaal yu fa jib li ciy sa wàll mooy que nga chercher à clarifier ça parce que aussi te loolu lu am solo lay c'est c'est l'une des rares fois en tout cas ñu constater que ñi nga xam ne dañu mës a ŋeeñ le pouvoir judiciaire au Sénégal ñu nangu ni c'est un pouvoir judiciaire indépendant et responsable responsabilité pour responsabilité bu dee aussi yow am nga candidat boo xam ne da nga ni kii mooy suñu candidat te ñu nekk ci réew moo xam ne coow li bëri na tout le temps nga war a engagé wu dans un processus électoral mi nga xam ne tu ne veux que ça soit qu'un euh, processus très clair hmm. transparent hmm. gis nga lépp loo xam ne mun na gàkkal loolu ëllëg war nga mën a jàpp ni loolu de dafay rafet nu dindi ko d'autant plus que. mais ba xam problème bi mooy. waa waa PDS mosuñu génne li nga xamante moo di preuve bi teg ko sur la table ne. waaw justement en plus ñoom nee am na ay preuves mais jusqu'à présent. mais loolu moo taxoon loolu moo taxoon assemblée nationale jël décision réunir pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour que loolu leer parce que nag bu ñu demoon ci commission d'enquête parlementaire boobu. Mhm. normalement war nañu teg sur la table. des gens qui sont choisis à l'Assemblée mais les preuves yu ñu détenir sauf que maintenant entre temps il y a aussi il faut qu'on le dise un juge du conseil constitutionnel bi nga xam ne dafa porter plainte mhm. loolu moo arrêté le processus de l'assemblée pour que la justice puisse faire non, le non, travail non, mais bu mu porter plainte teg ci ay fan oui ki nga xamante ne moo di ministre de la justice moo inter li nga xamante ne moo di assemblée nationale moo tax gars yi tëj maanaam teg affaire bi ci suuf non mais même bu ko interpellé non non non c'est sur le coup c'est-à-dire aussi juridiquement dès que xam nga commission parlementaire bu ñu ko mettre en place xam nga liy mettre fin à son action mooy que la plainte que le juge constitutionnel a faite devant le tribunal hors classe de Dakar biñ ko defee rek day annuler procédure assemblée loolu moo tax lu am foofu. ñuy xaar nag jugement boobu qu'est-ce que ça va donner.